li rabbil jotaay formation muy tàggatu ba képp koo xam ne nii ñëw nga Touba as jumaa ji sart sarti juma war may barab baak dëkk ba nga mën a sàmmonteeg moom ak saa boo gisee ku am tolof-tolof ci yaramam ci biir sàppa yi baali wër jumaa ji nga mën koo li indi ko sagoom dolli ca ñu yor kaaraange mën a xam ñin àndal ku ci ne fi nga war a commencé fi nga war a yem dolli ca mooy ket gi xay gi gi war a am ci jumaa ji ak ci kër yi ñu ñu waxtaan ci ba ñëpp bàyyi ci xel bàyyi ci seen xol ak seen xel ba ñëpp mën a màggal si jàmm dellu si jàmm doo fi jële feebar doo ko fa indi doo fa gaañu te nga am yool li ngay wut ci jumaa ji ci ziar ak ci jaamu yàlla wax nañ ko léegi nii ñun suñu liggéey dañ koo tënk ci ñaari wàll bu njëkk mooy bitti jumaa ji ak biir jumaa ji bitti jumaa ji sunu sëriñ Saliou Mbacke loo xam ne nii def la wu am solo ñu nit ñu dénk ñu ab liggéey ci wër jumaa ji ci pénc mi ñu wara kon dage ci liggéey ñaari ndigal na bu dagee la jaadu mooy toog waxtaan ba tënk ci ay point def nañ ko ba dëppoo nañ ci li aaye wax naa ko li ñuy aaye ñun ñaar dong la leme lii jumaa moo ko laajul ziar moo ko laajul li ci des war ma la ñoom nag ci liggéey bi da leen place foo xamee ni ñoom danañ sàmm seen ndigal ni nga ko war a sàmmee ba kuy dugg dëkk ba la nga ak ñoom nga wàccoo ko ñu nit ñu sàmm suñuy jumaa suñuy tere ba ku fa ñi tamit lan sàmmoonte yow nga def ko te ñaar ndigal yooyu benn du ñaar ndax lépp muy firi delloo worma Tuubaa nga xam ne nii ñépp a ko war a wormaal ndax borom dëkk ba ak dëkk ba ay plan da yooyu liggéeyee ab cadre bu leer nga xam li nga bëgg def lu mu doon noo koy defee koo koy àndal am na ki loo xam ne ni police mënu ko à cent pour cent ñun ñoo ko man dañ koy def am na loo xam ne wàllu police la dañ koy bàyyee ab police mënut a tere kuy dugg jumaa ji ñàkk muuru mënu ko ndax du liggéeyam waaye ñun mën na nañoo tere ku muuruwul wàccoog sart ya doo dugg ab policier mun tere kuy jaay taw la lu jaay yoon niw ca waaye ñun mën na ko tere kon liñ bokk ci ab liggéey liñ nuróole dañuy ànd waxtaane waaye suñu ndigal ñun nag dañ koy def mam war moo tax ñun chaque jour avant màggal màggal jotee day day réunion def suñu proposition suñu gis-gis yóbbu ci sous préfet ci réunion sous préfet bi gaaral ko fa défendre ko ko fi yóbbu ko ci départemental bi gaaral ko fa dépense gaala ko fa euh, ba pare sàmm ko ba muy ci kaw bu ñëwaatee itam ndigal la ki soppeeku ñu am noo corrigé ko ba ñu ne police mus ñoo am réeroo duñ ko am ba ñoom moo tax sax ñu am mu am ñu mën a am post avance ci biir jumaa ji mu mus am mukk ci ci màggal te mu ko am léegi kon déggoo la ak juboo wàccaanu màggal gi xam nga suñu doon ab texte bu bu am ab lu ñu tuddee ab statut ak règlement intérieur buy joxañ suñuy liggéey ñu am tamit ay xëdëf ay jubluwaay bokk na ki ñun tàggat suñuy ndaw suñu membre daayira ban xam kaaraange xam lu ñuy sowee nit xam na ni sàmm seen hygiène loolu du màggal dong de. loolu dañ koy def ci màggal ngir fàttali waaye formation bi daal continuité la ci information ba ci Senelec sax li ñu moom dañ koy def àgg ca même médecin yi doon màgget li ñu séq ci wàllu médecine dañ koy def yëmul ci Sapado waaye képp ku laal suñu liggéey ñun ñu séq liggéey la ngay def laa suñu jëf danañ ko jàng ba xam ko ànd ko yow ndax bu la gisu ëllëg taxaw gi tey mën taxaw. waaw ndaxte toll nii ñi ma ñi fi ñëw ñëpp muy treize daayira yi na lépp ku ñibbi da nga continuer sa formation treize daayira yi àndal ñooñu fekk si nga ànd ñoom ku ñibbi ku ne da nga jàngal say membre war may juma ni ko sariat santaane war may Touba ni ko sama joxee ndigal nooy aare ku feebar ku daanu ci jumaa ji ku fot ku xëm yooyu yëpp danga ko continuer sa waakat ndax sapeur yi ñu ngi fépp Touba te li li ñu xam ci xam-xam bi askan wi moo ko moom muy sapeur muy police misaan muy diwaan ñoom ñëpp dama war a jege askan wi wax leen nii mooy tool ndax bu gaar amee ñu mën a gaaw taxaw ñun moom loolu dañ caa taxaw ay ati at ñu koy def ba ñun am ci sib ne nii formation yi nii ñoom mën na koo sax sans ñëw sapeur waaw lii nag moom nationale la lii par année la moom par année lay am waaye ñun nag cinquante deux ajjuma dañ koy assuré jumaa ja at mi 52 ajjuma di assuré jumaa ja lépp luy xew-xew tabaski korite màggal gàmmo ak bépp xew-xew suñ suñ woote ci biir jumaa ji dañ koy defee ni kuy defee ci màggal gi waaye ñi ni ànd tamit da leen tàggat ba ñoom te bu ñëwee du am rupture maam du ñu jaar fii ñu jaar fii loolu mooy yàlla dogal dogal ko ñun tàggat nañ ci ba miin ko ba suñu membre ku ci na nga def boo boo ñëwee xam nga ko boo ñëwul xam nga ko. tere yu ñaari façon tere la dañ fay tere lépp lu am njaay ñun ñëpp xam nañ nag ñun suñu commencement liggéey fi mu commencé ak mi yam fan commencé tere bi jëm ci biir penc mi dañ fay aaye lépp lu xeetoog am njaay wala ku yor ay ku yor kuy majaal wala kuy géew di waare wala kuy majaal taxaw toog ci buntu toog ci buntu jumaa ji ci kaw trottoir bu njëkk bi lan la may mooy booy jaay nga ŋàbb sam njaay romb jàll jaayam nga taxaw jaay waaye bu lal ku gis kuy lal baa taxaw di jaay laa bi ko mu dem dan fay tere kuy diiwaan baa kuy jaay ay xarfu ay béjjéen ak i bant yow na na génn pénc mi la kon yow mi nekk ci pénc mi di di tere di liggéey xidma xamal na njaay mi danga koy tere dañuy tere wecceeku mànk muy manque joxe téeméer joxe juróom-ñeent mu koy tere géew toog ci kaw tëli bi wala ci buntu jumaa ji wala boog oto village bu fay jaar wala ak jur ci li wër pénc mi xam ne yow mi monte foofu woon ci pénc mi loolu lañ koy aaye yow mi monte ci giri bu njëkk bi du boobu de dan lay tere ngay taxaw ci bunt bi di xatal dugg bi baa muy jaay baa muy weccee buntu giri bi kenn taxaw di jaay baa di weccee da koy aaye dañu tere ku sol lu nuy wax peew panlo bu xat boobu wala panto yooyu ñu xotti dégrisé ko baa kilote boo xam ne nii mu mburu sëy wóom yooyu yépp du war ma danga nga koy tere yow mi monte ci buntu bi ñuy jaar di ziyaare ji muy buntu entrée ziyaare ndax jumaa ji pour nga ziyaare yaa ngi mën a jaare sowu ba kon yow mi ci biir jumaa ji dañ tere góor gu sol colug jigéen góor bu solee colug jigéen du dugg waaye nag góor gu ak góor goo xam daa na bakkanam baa mu sol yére pantalon bu xat baa bu xotteeku baa kilot boo xam ne nii muur ay cëram kon ni ma ci bunt bi na nga xool bu baax li la tereloo nga vee ci baax lii la sëñ bi jox ñu digal li ñun ci bunt bi ñu bàyyi ci xel yam yi monte ci biir jumaa ji nag yaa ngi ci biir jumaa ji ci sàppe yeeg li wër jumaa ji damay bàyyi xel bu baax ran yi di xool bu baax ñi ci bokkul ndax ñun sunu liggéey da am xàmmikaay ku ànd ak ñun ci liggéey bi da ngay sol ab blouse verte bu am numéro sa jëwriñ ñu xam ko nga am tur ñu am sant ñu mën laa teg bët ci caméra yi ak ci surveillance bi ngir boo juumee baa boo jàddee sol lu wun yëre policier wala yërëb sa wala yërëb sapeur wala yërëb service seen suñ digisment bi ñu xamee lan dëppoo ci liggéey ko jumaa yi ku bëgg a ànd ak ñun ci liggéey bi loolu ngay sol dañuy bàyyi xel ci biir jumaa yi ñu yelwaan ndax léegi ran yi majjaalukaay la damay nga ab tàngal mus tàngal fekk raaw jigéen jox ñëpp tàngal anasam borom jox ma juróom ñëpp joxe te loolu majjaal la damay bàyyi xel yo bu baax ñu yor ay caméra wala appareil photo baa ñuy filmam baa ñu yor drone ndaxte jumaa ji daam aw sëñ Saliou Mbacké dana joxoon digal ci loolu moo tax ku bëgg a filmer baa nga bëgg a foto baa nga bëgg a def sa reportage da jaar ca bureau ba ñu laaj la ay laaj loo bëgg a def noo koy defee foo koy defee koo koy àggal koo koy àndal bu dëppoog li ñu sax ci nangu-nangu ñu jox la carte d'accès bu am heure ne la heure sangam lay jeex dëppaatal jaar fa nga jaaratoon ñu xool li ngay jël ndax méngoo na ak worma ji wala déet su méngoo ñu din ba mu set su méngoo ñu bàyyi la nga dem kon ku amul carte d'accès foo ko gisee yebal ko ca bureau ba ci yar ak i teggin man ni mont nag yi ma war a bàyyi xel nga ko bàyyi xel baax a baax bi jumaa ji su ma gisee góor ak jigéen ñuy fotow damaa war ñu laabire leen dóor loowul la xasawul la dañ laa laabire loolu ban tàggale koo góor fotowu jigéen fotow ndax fotow jumaa ji ayuñ ko ayuñ jël foto li ñu ay mooy foto boole góor ak jigéen su ma gisee ku kuy sinap baa muy vidéo bu am misik wala ay xiin dama koy tere na ko dindi ko ndax loolu ant ak ma ci biir jumaa ji di laa bi baax ñi siyaare si ñu moytu daw bi surtout nag nawet bi ak di yëkk seen baat ca kaw baa ñu raay ay bunt baalu mel noonu walla sax yow soxna si nga bàyyi xel baax ne su ma amee ngànt waruma ñëw jumaa di bàyyi xel baax toogaay bi ci biir jumaa ji kenn ayiwul jumaa kenn du fa ayibul toog lu la ay mooy beral góor beral jigéen doonte si soxna la jumaa la su ma gisee nag ab sécurité ab sécurité ab sécurité ab sapeur wala croix rouge muy xettali nit yanu ko di ñëw doonte fin baare dana ne bu fi góor jaar ubbil ko mu jàll day xettali nit dinaa sàmmonte bu baax sama liggéey te jox respect bu ma sëkk ndawlu police ndax ñoo ànd liggéey bi war a déggoo moo tax ñun suñu liggéey ñun daa commencé ci CRD ba ca sous ba ca ministre ba suñu liggéey bépp dafa nosu moo tax li wax lii lépp ñun jànganam ci réunion yi ba tënk ko moo tax ñun chaque jour police yi ñëw danañ xam liñ bëgg ñun li ñuy sàmm ñu ngi koy ànde mosuñu faa jóge mukk ba sikkuñu te kenn du sikk ndax xam naa jumaa ji lépp ñépp la lu ne ku nga ca su ma gisee nag ku tuxali di ma ab sàcc baa ñu wax ma ne keneen sàcc su ma leeram ba ba gis ko damay jàpp ci loxoom yóbbu ca post avancé ba ndax biir birgiment yi am na poste avancé ku jàpp ab sàcc jox ko ndawul xidma wala police bi am na ki biir jumaa ya post avancé bu fa nekk ñoom danañ ko jàpp teg ko ci yoon bul dóor bul yuuxoo ñu koy sànni xeer wala ay yat yow mi soxna war ngaa xam yow mbokk daal war ngaa xam ne li ngay def war nga koo xam baax a baax ba doo jaawale liñ digle war ngaa gëm a xam sàrti jumaa suñu waxee léegi nii bu ne suñ sonee jumaa ji buñ sonee julli moom moo sës bu jumaa yi feesee sàppi day génn foofu moom polis xam na ne ñun taloo mooy ndigal li heure julli moom julli rek dëppoon na nag ci nu ñuy aare ba ginnaaw julli gi du am mbëkkante baa raj raj loo bu dee soxna yi soxna yi war ngaa col col gu dëppoog col diine yow mi nekk ci maa ngi bokk ci waxin ma nekk jigéen war ngaa dëppoog sàrti col gi mooy bum xat bum yaraax bum gàtt bum fànt te nga jéem ba li ngay tere nag bu nekk yow bunt bi muy ci góor ñi mu jigéen ñi tekki woon kenn ablam ñun wala seenam wala montaram wala mbaxanaam wala nangam ñun loolu suñu liggéey ñun laa biir ñu wax si mu da wax na ñun muslix lan ñun ku def loolu danga koy jubbanti waaye bu ko toroxal yow mi ñu seer simit war ngaa xam càtt xat sat sat seere ba doo ñëw jumaa jële melokaal woo xam ne ku la gis da lay xaw a jépp ba mu lay génne Touba nag fan yi ñépp dégg nañ ne sëñ bi jox ma ndigal Baay Faal yi ab liggéey ñu war a ànd ñoom liggéey boobu sëñ Fallou dafa ki liggéey bi war mooy toog ak ñoom dëppoo nañ ak ñoom ba ñuy def dana nuróo te dana ànd ak ñun ci liggéey ba monte ak ñun ñu ameroo sàmm wor may dëkk bi waaye nag ci yar ak ci teggin ak jëfe ndigal danga bañ a guddal wax naa léegi ne lam yi ki takk ak ngelaam wala plastique mu takk sooy ñëw ci moom daa siyaare si teg ko ci yoon saa mooy sàpp si góor saa nii xoolal ci moom colka gi góorewut jigéenewut jigéene wut ko diine la bàyyi ko mu dem ji bu xawee wuute li wax nag nga xam ne kooku nag moo aayal boppam jumaa ji tënk yi nag incha allah des na ko def ci wolof ak ci arab ak ci français yónnee ko mboolem daayira yi àndal ci liggéey bi ñoom it sewar ga mooy buñ àggee sako seeni membre ba ñun ñëw ci jumaa ja def loo xam ne nii daa wuuteeg ndigali sëñ ndax ñun biñ juddoo mars 1994 ba léegi nii ñaari yoon lañ dem sëñ bi laaj ndigal mooy biñ juddoo ak bi ñuy wax ak moom ci problème koor gi yi des yëpp sëñ Saaliw moo ñëw jox ñu ndigal yooyu moo jox ndigalul sanse piili jumaa ji ndigalul aaye am njaay ci pénc mi ndigalum sàmm war ma ci armeeri njëkk yi ndigalul jumaa ji ñu fet fa ruqut bay wolof yi am ci àdduna bi yëpp Touba la njëkk amee suñu saal mu jox ndigal si alaj baara bi mu ñëwee moo jox ndigal ñu ànd ak comité màggal bi ba képp kuy gan ñëw Touba ñoo lay dalal ñoo lay tagal ñoo lay jox nga xéewlu suñu sama suñu semaine lay ñëw ubbi amee Mbaxya ah jox ko waa xam ñu koy toppatoo ba léegi nii mu taxaa mii ne xalifa yàlla fi ak ndigal yu bari ci ndigal yii moo ko nga andi kon ñun waruñoo juum doon war a góorgóorlu ba dëppale sunum liggéey ak sunna wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu hmm? borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di ziarat ziar bu wér eh, di ñaanal sëriñ mu Mountakha Mbacké mu yàkk fi lool te ànd ak wér ak wérle di ko ñaana sëriñ am ni Modou Mbenda Fall moom it mu yàgg fi loolu te ànd ak wér-wérle ak njabootu lislaam gépp euh, di ziar suñu jëwrin yi suñu sëriñ yi nga xam ne ñoo fi teew mooy waa daayira muxaddamatul xidma bu jumaay Touba nga xam ne lépp liggéey jumaay Touba sëñ bi seen loxo la ko teg ñu ngi leen ziaral di jiital ziar bi sëriñ Fallou Mbakke euh, bu ko defee ñuy sant bu baax a baax a baax a baax euh, kilifa yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Louga di ci jiital sëriñ Mahmoudan Mbakke nga xam ne Euh, mooy borom Touba fii ci Louga ak sëñ Abdoulaye Fall mi nga xam ne moom mooy maam Cheikh Fall fii ci Louga euh, su ko defee tamit ñuy santaat bu baax euh, ki nga xam ne si ni mooy mooy borom barab bi di conseil départemental di sëñ Mbëri Silla ñu ngi koy ziar bu baax moom it wax dëgg yàlla teew na fi yónnee na fi te barab bi tamit wax dëgg yàlla bàyyi na fi wàccuwaay bu bare bare bari su ko defee tamit maire Louga ñoom it ñu ngi teew ci délégation bi sëñ Mor Silla ak sëñ ma dikkee ak sëñ xaadim euh, ñoom it wax dëgg yàlla ñu ñuy taxaw ci wàllu liggéey bi la ñoom it teew nañ fi bu ko defee tamit euh, directeur hôpital yabal na fi moom it yabal na fi euh, fii mi ngi mi ngi toog muy sëriñ Ousmane Cissé tamit conseil département mi ngi yabal ku naan sëriñ Aline Badara Samb moom lañ yabal fii tamit di sant tamit soxna Ayda Louga moom it teew na fi nga xam ne moo jiite mboolem soxna yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Louga moom it teew na ci jotaay bi euh, soxna Thiaré Niass teew na ci jotaay bi waaye soxna Ndeye Maana sekk mi nga xam ne euh, daayira Muxaddamatul ma bu Louga bi soxna yi laxasaay yi ñu sol ni moom moo ko moo leen ko fàggul ca màggal ga ba léegi ak euh, waa Jumaa Yërmande ñoom it teew nañ fi bi nga xam ne 1907 borom tubaab jóge na ci jóge na Mauritanie foofu la jaar dafa fukki fan ak juróom ci jiital Baye El Hadj Moussa Ndiaye ñoom it teew nañ fi waa ahlu kafe ñoom it teew nañ fi ak mboolem délégation yi nga xam ne teew nañ fi incha allah ci kàttanu yàlla bu ñu demee ba ci biir dana gën a yeggale jotaay bi euh, di wax ne euh, sëñ gouverneur moom it ak euh, sëñ préfet ñu ngi leen sant bu baax ndax waa police ñu ngi fi ak waa sapeur ak waa croix rouge ñoom tamit ñu ngi teew ci jotaay bi kon ñu ngi dalal ñëpp di siyaar ñëpp di wax ne ñu teewlu liggéey bi nga xam ne moom la waajal di siyaar ñëpp nag ci weeru safar wi nga xam ne moom lañu nekk di waajal màggalu ko tedd gi Cheikhul Khadim Euh, bu ko defee kon ñu teewlu bu baax a baax euh, liggéey bi nga xam ne moom lañ fiy def incha allah ci kàttanu yàlla jër ngeen jëf jërë ngeen jëf baax na ngi siyaar bu baax di ndokkeel tàmbalee ci ziar bi ak ñaan yi hmm. sëñ Muntaxa Mbàkke yal na yàlla déeg ku fi yàggal ko fi yàggu kéemaan dafa yàgg loolu bala lay si buri Mbàkke ñu ngi lay ziar bu baax di la tatagal di sant yàlla lool ci sa teewaay ndax kon day mel ni day wéral ci nga ne lii ñuy def tegu na ci yoon ndax bu ci teguwu ton doo bàyyi sa yitte dikk ci dañu ngi siyaar bu baax daanaka ak cant rek la war a dugg sëñ Fallou Mbacké hmm. jar na ko lool ndax an ko jëf junee an ko wax da koy jiitu te ki nga xam ne moom la ñëpp di xool ci moom wuruta juum te mel na ni ku dikk Touba sa yéene jépp mooy boo tegee sa saak balaa baat mbaa balaa teg ngaa teg sa saak danga naan damay siyaare ji kon war na ci ñi nga xam ne ñoo nekk ñaay tatagal ñooña di leen gindee ka njuumte wurut ci yéen gënu kenn nit nag ay murit ngeen sallaaw am na koy daw di rang koo xam ne bu ñu peese woon seeni màqaama bu tut ñu raw leen fuuf waaye dox goo gis tey am toppante kon li ngeen xam xam leen di juddu du xam-xam du alal bëggug Sëriñ Tuubaa la maa ngi tuub képp gi bëggug Sëriñ la réew mi yaatu na murit yi yaatu nañ waaye yéen la Ahmadul Xadim tànn ngeen ngeen saytul ko liggéey bii na ko xam na nangeen ko xam lay cant ga dëgg te war ci yéen moo ngeen xam ne ñëpp tàpp tàpp ci màggal gii ci bismillaahi rahmaani rahiim ñëpp ñibbi te kenn du am looy xebat rawatina ci yéen bu amut rek kon sàllaaw xamuleen liñ leen cërale ñi ngi sant bu baax ci leen di sant bu baax ci turu mboole seen daayira yi nga xam ne ñoom ñoo bootu seen gannaaw te ngeen yaatal lool nag ndax ndax ndax dangay wax ni amulu xaddiim lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci waaye it xatalu leen ndax bu ngeen xataloon du yegg si fii kon sant nañ bu baax gërëm nañ duma yaatal ndax li ñu fi wax yépp mat na waaye lu mënti xew daal ci yéen yéen yéen ñi nga xam ne yéenay saytu liggéey nangeen xam li ngeen xam li ngeen sédd mbir nag lu mu rëy rëy nga am ko te xamoo ko ñàkk ko ba am xam ko day gën wuru leen a juum bu leen juum salaamaaleykum wa rahmatullah di fi teewal kuréelu culturel gi nga xam ne moo boot ci daayira Muxaddamatul Xidma te sëriñ Abdou bu so moom sëriñ Thierno jiite ko di nuyu mbooloo mi ñu àndal ñëpp waaye di nuyu bu baax a baax ak ziar mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ fi fekk kenn ku ci ne ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax waaw suñu Cheikh Abdou ni ñu ko waxee jumaa de day lu am solo wàccuwaayam rëy ci lislaam lool mu nekk barab boo xam ne barabu jaamukaayu yàlla la nekk barab boo xam ne suñu borom fonk na ko lool fonk yit képp ku ko fonk le loolu tax na ay aayaat quraan ya ay laaya ci alxuraan yu bare bari wàcc ci di tagg ñi nga xam ne dañuy dundal jumaa ak di ko yittewoo di ko ñoŋal di ko setal di ko sore lépp loo xam ne yellut ci barab yu sell yooyu waaye it euh, fee ca Tuubaa sunu jumaa jee nga xam ne ñoo ko moom ak ku ca bëgg a bokk day jumaa joo xam ne dafa spécial ndax ni ko kàddu yi njëkk yi waxee rek dafa nekk jumaa jumaa am wàccuwaayu boppam mu nekkaat ci barab bu ñu wax Touba Touba am wàccuwaayu boppam waaye mu dëkkaaleeg borom Touba loolu it amaat beneen wàccuwaayu boppam kon dafay mel ni képp ku ñëw ci jumaa ji ne da ngay jaamu si yàlla wala dangay ngay liggéeyal sëriñ bi jaamoo ko yàlla ca jumaa ja war ngaa bàyyi xel ñetti wàccuwaayu yooyu war ngaa bàyyi xel ne yaa ngi ci néegu suñu boroom moom mi moom néeg bi am na lu mu bëgg koo ko doxale ca biir néeg boobee war ngaa jàpp ne it yaa ngi ci sëriñ am ay teggi laaj waaye war ngaa jàpp ne yaa ci biir Touba te biir Touba moom it dafa am statut spécial boo xam ne noonee la tëdde am it ay sart ak i yoonal yoo xam ne noonu la kilifa gi bëgg ñu koy doxale jumaa daal ci gàttal Euh, la ca ay teggin ak la cay worma lañ ca war a sàmmanteel mooy lii daayira Muxaddamatul Xidma di liggéey te loolu yaakaar naa tàggat na ci ay ndawam ay yooni yoon fàttali leen ko ay yooni yoon toqi leen ci ay yooni yoon la ca jiitu mooy rek yar sa bopp yar sa melokaan yar say jukko yar say wax yar say jëfin ba ku la gis naw la bu jaxasoog yow it gën a bëgg jumaa ji gën a bàyyi xel ki ki tëdd ci barab bi la ca jiitu nag mooy lislaam moom xam nañ ne kuy dugg ci jumaa dafa bëgg mu jiital tànku ndeyjooram ñaan buy génn mu jiital tànku càmmooñam ñaan bu duggee ci jumaa ji bu dee waxtu dagana naafila la mu naafila te mooy rek bu fekkente ne fekkut jant bi di so wala muy waaj a so fekkut jant bi fajaat di fenk wala muy waaj a fenk lu ñaari waxtu yooyu rek ci gàttam ci tënk lool bu duggee ci jumaa mën na koo nuyu bu ñaari ràkka rek doy na daal di toog bu duggee ci jumaa it mu xam ne fii bu fàttaliku suñu borom la bu jaamu ko ci la kon lépp loo xam ne rek anuta ko jaamu yàlla wala mu dàqonteeg moom waru ko faa def moo tax kenn du fa fo jumaa kenn du fa yuuxu jumaa kenn du fa jaay ak di jënd jumaa it kenn du yóbbaale loo xam ne soxlawoo ko ci sa jaamu yàlla lépp loo xam ne moo tax sax dañuy gis borom xam-xam dañuy sib nit di fa ànd ak xale boo xam ne day fo wala mu yuuxu waaye it la ca ëpp solo ci képp koo xam ne dangay liggéey ci biir jumaa wala ngay julli si ci jumaa ja da cay bokk am melokaan wu rafet melokaan wu rafet nag yaakaar naa ki wax léegi wax na ko mooy bàyyi xel ak cet cet gi nag la ca ëpp solo mooy nga fexe ba am xet gu neex kon damay gën a fàttali sama bopp di gën a fàttali ñi ma bokkal xidma di gën a fàttali mbokki jullit ñépp ne leen Euh, jumaa barabu malaayka kay la barabu suñu borom la képp koo xam ne dafay dem danga war a taaru am na ko alxuraan waxee taar ba nag la ci ëpp solo mooy nga yore xet gu neex xet ga nag bu neexee nga fexe ba làmmiñ wa teey da ngay wax ak nit ñi nga wax ak ñoom ci pas-pas comme ni ko suñu mbokk mi waxee léegi ndax day barab boo xam ne moom du barabu tiisante du barabu xëccoo du barabu saaga du barabu gëdd du barabu këdd kon barabu waxtaan la ginnaaw nit ñi ay pas-pas moo leen fi indi suñu borom moo leen fi njëkk a indi ñu ñëwaat di fi bàyyi xel Serigne Touba kon jàpp naa ne kuy liggéey ak ñoom wala ngay jëflante ak ñoom jëflante ba mën naa rafet mën naa gàtt ci kaw boo ko jaaree ci pas-pas. asalaamaaleykum wa rahmatullah jàpp naa ne loolu doy na. bismillaahi rahmaani rahim mbokki taalibe ñu leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam. di ci nuyoo bi sëriñ Mouhamadou Mbacké comme ni ko ki ñu jiitu waxe ñuy am mbégte torop ci teewaayam ndax tey buñ fi buñ fi ñëwee mu ñëw teew dañ koy rafetlu bu baax a baax di ko ñaanal yàlla bàyyi ko suñ kanam ndax ñun ñu dëkk Louga suñ sag la sagub dina ji mais sagub murit ji la kon ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla may ko wér-gu-yaram mais bàyyi ko suñ kanam di nuyu ñi fi teew ci turu monsieur le ministre maire Moustapha Diop bi nga xam ni moom a yabal ma ànd ak ñi nga xam moo koy xelal ci wàllu diina ji muy sëriñ Xaadim Diop mu ànd également ak secrétaire général monsieur Madické Dieng yu ñëw ci bis bi nga xam ni tey dana ñëw pour ñu waxtaan ci lu jëm ci màggal gi waaye waxtaan ci ni ñu ñëwee ci jumaa ju mag ji muy lu am solo ndax tey ku fàttaliku lu tax ñu war dem màggal muy génn Sëriñ Tuubaa demoon Gabon bisu tey ñu toog fii ci Louga ci senegal ñu invité ñi nga xam ñoo yor kaaraanga réew mi ñuy xalaat nan lay demee ci màggal gi nga xam ne kon Serigne Touba am na ndam bis bi tey dama jàpp ne ndam la ci yoonu murit ci loolu nag monsieur le ministre maire yónni woon ñu ñëw ànd ko ak ñoom xaadim ñoom ayda pour ñu jàpp ci bis bi lépp lu fi def moom la ko defal ndax naam Sénégal yaatu na waaye lii am ren fii ci Louga jàpp nañ musul am te ñeen koy defal muy population Louga te moom yàlla moom la jox mu jiital leen kon lépp lu ko leen defal rek mu ngeen ko defal moo tax mu leen sant bu baax a baax ni ngeen choisir commune bu Louga pour def fii formation bi ngeen def tey ndax kuy ñëw màggal bu sañoon bu fa jógee ànd ak euh, yiw waaye yeesal ak njébbalam ak taalibeem Serigne Touba kon mu fay dem am jumtukaay yu mel ni tey képp ku fi jóge bu demee bu demee koñam wala mu dem ci daayireem yóbbu fa li nga xam moom la fa dégg jàpp nañ kon waa Louga dañ dem ci màggal gi jàmm ñibbi si jàmm loolu moo waral moom la ministre maire Moussa Diop mu leen sant bu baax a baax yéen jóge Touba leen dalal li ñaan yàlla ngeen delluwaat ci jàmm waaye ñu xamal leen ni fii ci Louga lépp loo xam ne dafa jëm ci diina ji moom da ci taxaw ndax xam na ni dañ koo dénk li askan bi moom ci biir loolu yoonu murit am ci lu baree baree bari mooy li ñu li ñu dëgmal muy màggal gi saa bu jotee dana ànd ak murit yëpp ci safar si di jàppale bu baax a baax a baax ci ni ñu koy defee waaye bu nu waree demit dana yëkkati ay bus yu bari jox ko taalibe ñu pour ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm kon daal bi ngi sant ñëpp ñu ñaanal réew mi mu am jàmm ñaanal ko moom mi nga xam ne nii également mooy maire bi mu am jàmm te ñëpp dem si jàmm ñibbi ci jàmm waxoon na su ma ñëwee ma teg lii ci ci daayira pour que ñu mën ci jàpp. pour organisation bi ndax lépp moom la war sëriñ Xaadim. rabbi sarax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sang-sang yi moom seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm suñuy ñaari wayjur waaye nag duñ jóg ci feddali suñu yaa euh, suñu kóllëre ak suñu yaakaaru tey ak ëllëg mu Cheikhul Khadim sëriñ Borom di di di rafetlu jotaay bi di ci kontaan lool euh, di nuyu kilifa yi fi teew jóge ba Touba euh, ñu ciy beral nuyoo sunu sunu sunu wóllëre sunu xarit Euh, sëñ Fallou Assou Ndiaye mu doon nit koo xam ne ku yàlla baaxal la lii ñuy waxtaane fii tey muy sécurité jumaa ji bon mën naa ne moom moo tax man ak moom ñu xamante kon man ku mën a wax ci sécurité jumaa ji laa ndax liggéey naa ci ay ati at suñu borom defal na ma tawféex boobu di di rafetlu nag jotaay bi bu baax parce que jotaay bi du ku nekk moo fi mën a nekk bu la yàlla defalee tawféex ba nga nekk fi war a liggéeyal Serigne Touba kooku da nga koy sant yàlla bu baax a baax ba tax na liggéey bi ñu ci jublu wala li ñu si bëgg a wax amaana sax euh, xeeb nañu ko lool lool parce que suñu yéenee kawe na lool suñu kilifa yónni ñu fi euh, muy le commissaire Gnima Diédhiou nga xam ne bi mu ñëwee Louga yàggul mais mu ñëw yabal ñu fii ñu fas yéene bokk ak yéen. liggéey bi insha allahu taala di leen wax nag ne Touba dafa doon benn ville boo xam ne dafa spécial donc sécurité Touba màggal bokkul ak mooy sécuriser beneen xew-xew parce que fii ay nit ñu am ay gëm-gëm ñooy ñëw di màggal si di ñëw pour kennal seen sëriñ di ñëw pour ziyaar seen sëriñ donc dafa am benn particularité bu fa am parce que dañ naan en matière de maintien de l'ordre c'est le terrain qui commande donc ñi nga fay euh, jëflanteel day doon ay nit ñoo xam ne dañuy jógee ci gox yu wuute yor jikko yu wuute yor compréhension yu wuute donc sécurité boobu lu ciy jiital mooy médiation c'est très important mooy waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom mooy doon li nga xam ne moom la ñuy jiital waaw parce que boo ko deful rek dangay doon ay nit ñoo xam ne dañoo am pas-pas waaw mën nga li ngay bëgg sa liggéey ni muy ñoŋee mun naa mun ko ko bañ a am moo tax it melokaan bi lu ci am solo la dégg naa sëriñ bi mu wax ko sànq mu ne melokaan wi ak xam-xam mi ndax loo xamul doo ko mën a doo ko mën a liggéey te li ñu wax rek sécurité moom yow la ci sa bopp ba pare. yaay njëkk a sécuriser sa bopp avant keneen di la sécuriser parce que mbooloo mii dajeeg màggal ga dafa bari lool lool lool te jumaa ji métti na métti goo xam ne euh, ku ci nekk sa pas-pas moo tax ngay daj coono googu pour dugg ci biir kon kooku nag bu ñëwee am na noo ko war a mën a aborder am noo mën a wax ak moom kon loolu am importance la nit ki da nga koy jox cër mu delloo la ko waaye bu bëggee ñëw nga am noo waxeek moom noo xam ne tamit su toppee ngëm-ngëmam yéen ñaar yaakaar naa ne day xaw métti te yaakaar naa ñun li ñu fa yóbbu mooy fexe ba sécuriser les personnes et leurs mu doon lu important comme jumaa ja tamit day xat ma bëgg am ci benn mbir mu ma taxawagum rek mooy suñuy alal loolu dangay dangay yombalal mbir mi liggéey yi force de l'ordre yi ñuy bàyyi xel comme dafa am ñuy màggal ak ñuy raas déem mooy ci biir mbooloo mi am na ñoo xam ne màggal leen indi mais am na ñoo xam ne ku ci nekk. yaa ngi am li nga xam ne moom moo la fi indi ci caay-caay yi bari na muy seen alal di seen téléphone muy seen pochette de préférence boo ko mënta bàyyi soo ñëwee foo toll rek dee koy bàyyi xel waaw boo yoree poche moom del làmb rek loolu da ci am solo aussi ma wax ci beneen euh, volet boo xam ne bu am importance la mooy ci ci ci rang bi parce que il faut ngeen di surveiller ak les entrées bu baax a baax nit ki nag doo ñëw di dugg nga naan da nga koy fuyee mais bon je peux dire que ne euh, ci prévention entrée bi def ci am importance bu baax yow mi topp rang bi del liir nit ñi parce que nit boo ko gisee bu fekkee lu juba ko tax a jóg boo ko gisee di nga ko xam mais bu ci naree def yenn rek di nga di nga doon koo xam ne doo ko wax ne ko hee dara de mais yow da ngay doon koo xam da nga koy surveiller de près ba nga xam ne du mën a lor kenn loolu c'est très important mais aussi may wax ci benn mbir. mooy euh, waa daayira bi dafa am benn liggéey bu spécial boo xam ne moom moo leen tax a jóg ñun bu ñu ñëwee dañoo ñëw dafa am loo xam ne suñ borom moo nu ko dénk ku ci nekk nañu ko jox li nga xam ne moo ko moom ndax yéen dangeen ngeen ñëw pour taxaw pour liggéeyal sëriñ bi ñun ñu ñëw taxaw pour liggéeyal sëriñ bi kon ñun ñaar ñoo ñu ñëw ku ci nekk ñëw yaakaar naa ne suñu liggéey war na mën a jafe si kaw dañuy waxtaan ndax am na yéen seen liggéey fu mu yem foo xam ne mënu leen ko dépassé. ñun am na foo xam ne ñun yoon loolu lañu may pour ñu mën a yeggali loolu liggéey boobu noonu mu doon loo xam ne tamit lu am importance ñu koy bàyyi moo tax liaison entre ñun ak yéen dafa war a doon lu am importance su suñu yegsee rek premier contact yi ñuy def mooy dañoo war a njëkk a waxtaan chef man de man lañ fi teg pour ma ànd ak yéen kat liggéey liggéey bi man la ah man de pare naa pour jàppale la parce que nag des fois yéen yéenay xam yenn kilifa yi yenn kilifa yéen yéen leen xam des fois am na accès boo xam ne ma boole ko nga ne ah. sëñ bi kat kii moom mooy diw ak diw fii kat lii la sëñ bi dégle nee nañ ko bàyyi mu jàll man boobaa duma ci duma ci am wax damay bàyyi rek loolu mooy waral ne waxtaan wi am na ci solo lool lool ñun ak yéen suñ diggante ak yéen parce que ormaay Touba du ñu nangu kenn di ko xotti sëriñ bi li mu bëgg ci dëkk bi ñun loolu rek moo tax di jóg pour sàmm ko du ci màggal gi rek lañ koy sàmm lu dul màggal sax ñu ngi ànd ak suñu kilifa yi. ci police ñi nga xam ne ñoo nekk biir Touba di ko di ko sàmm ca la ñu mën kon bu ñu ñëwaatee si màggal gi nag loolu dafa war a gën a rawati ñu bañ def la tout ba nga xam ne kenn du def sëriñ bi bëggul waxuma la nga ñëw ba ci jumaa ji léegi nag man gis naa koo xam ne kat ah def na loo xam ne kat dañ koy tere man de li may njëkk a def duma ko yooxu duma ko wax lu ma ko war wax damay ñëw ba ci moom bu nee soxna la ma ne ko ah yaay booy soxna si lii kat la sëriñ bëgg suñu sañoon ko doxalee nii. bu dee góor la nga ne ko ah, sëriñ bi lii ak lii kat dañ koy tere si jumaa ci loolu moom mooy wax ba pare en amont man je préfère ñu utiliser la médiation d'abord léegi nag des fois nag ci sa liggéey nga daje seeg ñu dëgër bopp loolu moo waral ñu naan la il faut être courtois mais ferme la fermeté ci sa liggéey ndax nag doo leen bàyyi ñu topp seen bëgg-bëgg ba yow ñëw lor la ci sa liggéey moo tax man. am na année at boo xam ne dañu ma yóbbu ci barabu sëñ bi ma bokk si ñu ko war a sécurise mbir mi metti lool lool lool suma côté ma xam ne fii du bërëb bu ñuy bu ma xee nit du bërëb bu ñuy dóoree nit ma jaar leen ci seen gëm-gëm ne leen ah, sëñ bi ndigal li la joxe de ndigal li sëñ bi ndigal li nee na ngeen def lii ma gis mbir mu yomb ma nekk ca ba keroog may wàcc seen gëm-gëm laa leen jaar ba am li ma bëgg. foofu noonu loolu la laaj waaw foofu foofu laajul laajul buumax laajul dóore waaw laaju ko daal rafetlu wuñ ko te te te te day doon loo xam ne day metti looloo waral nag ñun ak yéen mais dans la main ñu jiital nit ñi ci wax ne leen ah lii kat dañ koy tere si jumaa ji ñu teel koo xam nañu ko teel a xam mooy médiation bi na jàll ba pare surtout yéen nag ngeen jiitu ci loolu noonu parce que domaine sécuritaire dafa doon loo xam ne tamit yombul te aussi bu ñu demee ba ci rang yi nañuy suuraale ne day xaw a métti rang bi day xaw a métti lool lool ci nit ñi surtout moo si soxna yi ah, ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci porte yi nag di bàyyi nit ñi di dugg ñuy xool nu ñu koy organiser ba nga xam ne yàggaay bi lool lool lool su mënee ñàkk waaw yàggaay bi aussi loolu bu mënee ñàkk ñuy xaw a xam ne li jig peut-être góor fekku ci jigéen. jigéen dafa xaw a un peu sensible loolooy waral yii ñu fi wax léegi ñuy daanu ñu leen di jël wala crise di leen ci fekk kon loolu lu am importance la aussi ñu bàyyi ci xel bu ko defee euh, ci ci tënk si tënk sécurité màggal gi euh, jumaa ji lu ko wër yëpp da ngay gis des fois ay bousculade yu métti dafa am ay bousculade yu métti des fois muy am nit ñi di daanu loolu des fois mu am loolu nag li koy prévenir lu ju lu jëm jumaa ji wër ko ba ba ba jël jël par exemple damay jël benn yoon boo jógee jumaa ji nga jëm marché marché Ocass des fois damay gis jaaykat yi dañuy lal ba xaw a jege jumaa ji te trottoir bi nit ñi war a dox des fois bu ñu fa lalee nit ñi ci kaw tali bi la ñuy dox bu ñëpp di dox ci kaw tali bi day métti pour nit ñi mën a avancer des fois nawet lañu ñu nekk période nawet mu taw am ay taataa yu am nit ñi duñ préféré aw ci taataa dañuy préféré di jaar ci trottoir yi parce que lii ko ko dundul mënoo ko xam comme suñu borom dogal na ñun dañuy dem di màggale di xam li xew loolu tamit day baax ñu soulever ko pour permettre la circulation des personnes mu doon loo xam ne lu yomb la te loolu xam naa ne incha allahu taala kilifa yi dinañ si bàyyi xel euh, bu baax a baax. bu ko defee sëñ Xaadim bu fekkee am na lenn lu ngeen xam ne daan na doon ay jafe-jafe yu ngeen doon daj di ko jànkonteel ci seen liggéey bu ngeen nekkee si jumaa ji ak suñuy ñoñ mu doon loo xam ne lu ñu xam ko buñ amee lenn lu leen ci war a expliquer aussi loolu dana am solo aussi incha allah. jël nañ seen i matukaay comme ni ñu ko doon defee chaque at wala ñu yokk ko sax pour fexe ba nit ñi dem ci Touba ñëw si jàmm. mais comme su borom dafa dogal na dañoo basé wu ci waxu sécurité jumaa ji ak yooyu damay préféré ma tënku ci loolu rek leneen li ci des ma bàyyi ko samay kilifa jërëjëf. jërëjëf mbooloo bi maa leen di nuyu di nuyu ku nekk turam ak santam di nuyu sëriñ ñu fekk di lañ jox seen wàccuwaay di nuyu ñëpp ñu fi teew tey nag nañu fi ñëw comme waxtu bi bëriwul nañuy tënk liggéey bi rek. te ni ñëw pour wax ñett pàññ ñett ponc benn ponc bi mooy bu jëyee amee lan ngay def ba ñun ñu teew parce que ñu bëri jëyee day am ñu naan pompier ñëwagul ñëwagul fekk amul kenn koo xam ni woo na pompier yi te aussi pour woote pompier dafa am fi nga war a jaar ak di nga war a jëfandikoo pour mu gaaw ñaar bu ñu paree dinañ def koo xam ni dafa nekk ci mbooloo mu jéggi saa rek mu am yëg-yëg bi nga xam ni moom xamul sax lan la mu mel ni ko am ay jafe-jafe jafe-jafe nooyi jafe-jafe fat ñu xool kooku nuñ koy nuñ koy dimbalee wala nga nekk ci mbooloo yàlla def nga xëm nga ñàkk sa nga nu koy waxtee sax nga nga perdre connaissance ànd toog sa sago ànd sa sago léegi ñett yooyu lañ leen wan lu ñu koy defalee mu gaaw parce que waxtu bi dafa dafa bariwul léegi nag ku bëgg laajte rek mun na yëg te loxoom rek mu laajte parce que xam dafa làqu ku bëgg laajte rek mun na mun na laajte voilà. nekkee ci jafe-jafe ki fay njëkk a teew koo xam ne moo ko njëkk a fekke moom moom lu ci gën a war a gaaw war naa mën a def alerte mu alerter les sapeurs pompiers. alerte nag bu ñu koy def daa am foo war a jaar du da ngay jël sa téléphone rek di woote di waxee nu mu la neexee sapeur boo gis am na fu ñu lu ñuy wax BOT bureau des opérations et de transmission boo wootee foofu ngay jot am na ñoo xam ne ñu ngi foofu ñun seen liggéey ci wàllum loolu la moo tax ñu ciy profité di leen wax tamit boo leen gisee ay xale wala ay ñu munti doon ay mag sax di léeg-léeg dañuy jël téléphone yi di woote foofu di tooñ di def naka sa te loolu day tax ligne day saturé yow boo naree woote sa sa appel du jàll même bu dëgg amee accident am nga nar a woote foofu day xat réseau bi day saturé doo mën a jot nga yaakaar ni dañuy woote sapeur yi bañ a jël fekk looloo koy waral mu ngi leen di ñaan ngeen profité di sensibiliser waale en même temps njaboot gi la famille la population lu ñu ko mën a def rek pour bu ñuy alerter mu gën a gaaw alerte nag boo koy def boo njëkkee woote li nga war a njëkk a def mooy dangay joxe sa numéro téléphone téléphone bi nga wootee da nga koy joxe parce que ko joxewul bu ligne bi daggee pour ñu jotaat la téléphone boobu moo koy permettre numéro boobu ngay joxe mooy tax ñu lay njëkk a jotaat après nga joxe sa tur ak sa sant boo ko defee ba pare nga joxe fi mbir mi amee parce que boo ko joxewul mbir mi fi mu amee boo ko joxewul même sapeur buy ñëw bu xamul tamit fan la du mos a àgg wala buy ñëwit dina fekk kam doon wàllu situation day gën a grave moo tax fi mbir mi amee exact da nga koy joxe nga joxe lan moo am li xew bu dee benn nit la bu dee ñaari nit la na wala ñetti nit nga wax ko nga wax tamit lan nga gis si ñoom bu fekkee day nàcc bu fekkee dafa tëdd loos def nii wala bu fekkee nga gis ni dafa mu ngi dafa damm nga xool tànk bi def nii ba génn ak nu ti mel wax ko nga ni lii laa gis si moom temps de nit la wala kenn la loolu danga koy wax parce que boo ko waxul bu ñuy ñëw secours du ñu xam li ñu war a mën a indaale matériel bi mu ngi mel ni intervention bi amoon bii passé biis bi bi mu daanoo alerte bi baaxul rek xam ni pratiquement yan moyens la ñuy gën a mën a ñëwee dañuy ñëw foofu di wutiwaat yeneen moyens yoo xam ni nekkul ci sapeur comme ay pokolin ay yeneen ak yeneen yi nga xam dañ ko waroon a demander bu ko amul du sotti loolu tamit dañ ko war a def boo paree ci loolu nga wax yow lan nga def yow yow yow yow mi teewoon foofu parce que yow li ñuy tuddee première maillon de secours yow la nit kooku teew kooku bu ñàkkee def dara rek nit ki même bu sapeur ñëwee ay sens de day xaw a day xaw a wàññeekook doole moo tax ki fa teew ki fa teew il faut mu am lu mu def am na ñoo xam ne dañuy faral ñu naan bu ko laal ba sapeur ñëw boo fa mënee def dara te nga xam ne mën nga cee def def ko parce que dafa am solo yow yaa njëkk a teew kon faaw nga def dara boo teewee boo defee dara ak li nga deful nga wax ko sapeur pompier bi nga ne lii laa def lii laa deful rawatina nga protéger foofu fi fa nekk faaw nga aar ko ñag ko ba leneen du ñëw dal ci kawam wala mu dal yow mi nga xam ne yaa fa nekk ci kaw wala ñi xam ne ñoo nekk ci sa. ci sa ginnaaw foofu teew loolu tamit da nga ko war a def ginnaaw loolu bul ñëw jékki-jékki woote rek teg téléphone bi wala nga coupé balaa ngay coupé ki ngay waxal teel foofu sapeur boobu da nga naan ko ndax man mën naa coupé tànk wax la bul coupé bul coupé parce que yaa moom yeneen yeneen wax moom yow wax bi ngay wax ak moom ak li nga koy jox foofu renseignement yi moom day profité wax la defal lii defal lii defal lii defal lii defal lii le temps que sapeur bi sapeur bi agsi alerte noonu lañ koy defee mais doo jël sa téléphone rek commencé noonu nii nii dafa am fu muy jaar alerte boo ko defee noonu rek amul problème sàppar buy ñëw ñëw leneen li si tegu waxoon naa ko sànq mooy di woote di tooñ amul sens téléphone bi 18 bi dañ koo teg pour intervention bu amee loolu na ngeen su jàppale ngir yàlla ak yonent bi voilà loolu mooy alerte maintenant ñu ngi dugg si loo xam ne mooy malaise mooy nga jékki-jékki nekk ci mbooloo wala mu nga jékki wala ngay dox wala nga kii jékki-jékki rek nga sentir sa dënn di metti ngay ñaq nga jékki-jékki commencé miir loolu la ñuy wax malaise benn sensation la boo xam da nga koy yëg danga koy yëg bu metti bu xam day ànd ak douleur poitrine bi ngay yëg sa yaram di metti ngay miir loolu la ñuy wax malaise kooku su la dalee yow mii ñëw njëkk koo gis mu koy def boo ñëwee li nga ko war a njëkk a def mooy nga jéem ko njëkk a da nga koy téye da nga koy téye bu ñëwee bu fekkoon ni mu taxaw muy sentir douleur muy kii li nga war a njëkk def da ngay ñëw nga que nit boo ñëwee rek song ko am na nu muy demee day yaakaar ni leneen nga koy def da nga koy agressé wala nangam nangam abordage dafa solo nooy dikkee si nit sëñ na nga def wala soxna si na nga def lay metti ko wax ak moom d'abord wax bi wax bi dafa am solo bu ñëw rek song ko boo ko mu yaakaar ni leneen nga koy def nga waxtaan moom mu tal ko lan la lu lay metti faaw nga laaj ko lu lay metti parce que la plupart ñooñu ñi muy dal noonu li ñu gën a gën a dal dañuy am ce qu'on appelle des maladies répétitives comme ay asthme ay diabète et ainsi de suite ay convulsions yoo xam ne ay crise épilepsie yoo xam ne ñu lay gën a dal ñooñu lay gën a faral di dal moo tax saa yoo ñëwee rek waxtaan ak waa ji nga laaj ko lan moo lay metti lu la dal est-ce que lii mu ngi lay doog dal bu fekkee da koy doog a dal nga laaj ko parce que dafa am solo ndax lii mu ngi lay doog dal wala da lay faral di dal nit la day wax ak mu ngi lay wax ak moom wax ak moom conversation li ngay waxtaan ak moom noonu moo lay permettre yow nga xam ni kii lan la pour su may alerté lan laa war a wax kooku ki may alerté boo waxee moom ba pare da nga koy mettre ce qu'on appelle au repos nga bàyyi ko mu ànd ak dal nga accompagne mu dem ci suuf bu dee si naaj la bu ko teg ci naaj yóbbu ko ba ci ker moo xam fu munti doon mu wéer ko mu toog nga accompagner boo ko accompagner ba mu toog ba continuer di wax ak moom continuer di wax ak moom sëñ bi ndax lii mu ngi lay doog a dal mu tontu la waaw wala déet ndax mos nañ laa hospitalisé nga laaj ko ko ndax mus nañ laa hospitalisé bu fekkee da koo am nga laaj ko ndax yaa ngi jël say traitement ndax yaa ngi ak say médicament ñëpp xam nañ ay diabète ak ay insuline dañuy doxantoog seen i médicament ay ñi nga xam dañu am am ay hypoglycémie yooyu noonu la glycémie mooy suukar siy wàcc boo ko mayee suukar rek moo xam coin bu am suukar wala lan yaram bi day delluwaat muscle yi day day dikkaat loolu danga koy laaj parce que danga koy aidé bu fekkee da koy jël nga aidé mu jël moom dina la wax sama médicament ngi nangam ak nangam am na ñoo xam pompe bi la ñu yor aérosol muy ñam aat yooyu yëpp ko nga koy laaj boo ko laajee nga ni ko boo ko laajee ba pare ba ba loolu yëpp mu leer ndax am nga médecin. lu bu baax jataay bii nekk jataay boo xamante ni ah maa ngi koy doog a mus a fii waaye lu nu war a yaatal la te képp ku fi dikk ndaw nga fa nga jóge boo demee nga woote nga gën ko faa yaatal. bu ko defee nit ñi dinañ xam mën a jël seeni matuwaay pour mën a dem ci jàmm màggali ci jàmm dikk euh, ci jàmm ah service d'hygiène moom ku ko wax wax mbirum set set dafa nekk loo xamante ni lépp da koo rafetlu muy suñ aada suñ cosaan rawatina suñ diine kon set moom mooy jiitu ci lépp lu ñuy def nañ ko na ànd ak set bis bi ñu jëm ah, ak ñun ñëpp ñu koy teewee ku si nekk nga ànd ak mbirum set nga set set ci sa yaram set ci sa yére set ci sa jëf set ci sa doxalin ndax bu bu ko ñépp defee rek dina mën a ànd ak wér waaye parce que mbooloo ma fay tas ku si nekk ak sa jikko ku si nekk ak sa doxalin kon nag ñu bàyyee xel bu baax di sàmm ak set gi bërëb ya dëkkuwaaya fi ñuy dalal gan ñi ñu bàyyee xel bu baax ca fan yi dëkkee ca ya ca ndox yeen yi naan waaye ñam yeen yi jëfandikoo lu am solo la ñam bu bu ñuy jëfandikoo bu si nekk na ànd set ak sel yeney jaay yeniy indi di ko barkeeloo ñu koy bàyyee xel di xool ñam ya ndax set na ndax sel na ndax dat ba muy war a ndax périmé na wala périmé wul ndax date ya jeex na wala jeexul ndax ñam boo xamante ni kat date ba jeex na boo ko jëfandikoo mën naa indi ay loraange ci dundu doomu aadama waaye ndox ba nuy naan mu set mu sel ndox ba nay set muy sell ndox mën naa set sel ca fa muy jóge waaye nag fa muy jaar mën na faa xajam indi fa ay doomu jàngoro fan koy fan koy denc bu setul bu selul day indi ay doomu jàngoro waaye aussi nan koy jëfandikoo jumtukaay yeneen jëfandikoo bu setul bu selul day fay indi ay doomu jàngoro kon ñu si bàyyi bu baax xel ci mbirum ndox ma ah yéen daay rey kenn ku si nekk tubaa ku ko wax wax xéewal foo dem foo taxaw dañuy joxe ay xéewal sun boroom ah sëriñ bi moom moo santaane ganam ñu teeru leen teral leen te ku si nekk da ngaa am pour barkeelu si waaye nag la ngay jëfandikoo na set na sel nga ban saa loru kon lépp lu jëm ci mbirum set nan ko sa bàyyi xel maanaam jumtukaay ya waaye loxo yi tamit nay set kafe gi ñu ngi koy joxe ñu ngi joxe yeneen yi jumtukaay yooyu nan koy raxas ba muy set waaye da ngay jox kii tey lii après nga tangaat jox ko fële ah day xaw a doy waar kon nag jumtukaay nay set nay sel nan koy raxas ba muy set ci mbirum set muy ca suturukaay sax ak leneen baax na sax lu mel ni ñu am ñetti ñetti ndab benn ndab bi mu am lu mel ni ndox ak saabu beneen ndab bi ci des mu am ndoxu kase ak beneen ndox ba nga xamante ni da say am xeet yoo xamante ni mooy rey doomu jàngir lu mel ni ay ordu sawel boo raxasee ndox ak saabu ba mu set jumtukaay après nga léegi ko ko ba mu set ca ndoxu kase ba bu ko defee nag ndox ba nga xam ne moo am eau de nag seen ko sëy dugal mu rey doomu jàngoro yi ndaxte dañuy faral si sunu suñu cosaan di def loo xamante ni saabu muy xaw a laale ak eau de Javel te ñoom ñaar warunoo laalante warunoo fekkante eau de bi ak saabu bi saabu bi dafay néewal kàttan eau de Javel ba la mu war a rey du ko rey te seen daje sax am na ay xeetu lu muy xaw a génn yoo xamante ne day indi ay loraange kon lool ñu bàyyi si xel bu baax hmm? ñëpp ah, taxaw si bu baax ci mbirum set bi ak setal ah ci mbirum dëkkuwaay yi ñun muy kilifa diine yi waaye kilifa aada yi waaye ñun tam yeneen service technique yi danoo am benn part de responsabilité si suñu dëkkuwaay yi ndaxte nit ki kat fa muy dëkk war naa nekk bërëb boo xamante nii benn loraange waru faa mën a jóge di dem ci doomu aadama bi boo amee bërëb boo xamante bii war na nañu koy jàngat bërëb boo xam bii bërëbu ndox buy taala ñu dëkku ko dëkkuwaay lu mu xat-xat nañ fay bàyyi loolu foo xamante ne indi loraange ñu bañ faa dëkk ñu koy joxe ñu koy autorisé ak ñu koy jël seen bopp tamit ah ñu bàyyi sa xel parce que tôt mu yàgg mu yeex ay loraange lay indi service d'hygiène nag Touba moom ñoo fa macha allah ñanga fa sax fi mu toll yàgg nañ fa raison bi ñi fu nekk la ñuy jëlee ay ndaw ñu dem fa di la di fa taxaw bis. liggéey ban fay def mooy lan ñi ngi wër di puudar dëkk bi ndaxte ku wax nawet wax ndox yu taa ku wax ndox yu taa wax feebar yu mel ni yu jóge ci mbirum ay yoo ak seen ñoom yoo nag bari na ay xeet am na yuy joxe sibru am na yuy joxe sax yu ñuy wax ba yeneen xeetu sibru yu ñuy wax dégg ak yeneen yooyu yëpp ci mbirum ndox bi ni kii moo tax ñu di leen puudar dëkk baag la ko wër pour yooyu ya nekk ca biti ñu mën leen a fagaagal waaye ya nekk ca biir kër ya tamit am na di leen dugg ca biir kër ya di leen pompe pour fagaagal leen kon lii ñu jàppale leen ci seen liggéey saytu ba ñam ba ñoo ngi koy def ci dëkk ba ñoo ngi koy wër waaye kenn ku si nekk nekkal sa service di d'hygiène kenn ku si nekk teewalal sa bopp oh, ci mbirum set ak setal mbalit bu mën a nekk nan koy am jumtukaay buñ koy defar jumtukaay nag buy def mbalit mooy loo xamante ni fuqul bënnul sennul te mën naa tëju te mën nañ koy raxas ba mu set di ko ah, def sa eau de di ko désinfecté loolu ñu say bàyyi xel bu baax waaye tamit ju ndox doomu aadama fi ñuy nekk dañuy jëfandikoo ay ndox ndox yu baaxul yooyu ñuy jëfandikoo ñuy faral def lu mel ni ay phosphoridés puisard ndox ba di fa mën a dem comme fële canalisation bi fa waaye ndox bu baaxul bi yëpp mën a kii muy bañ ndox ba di taax ak di jaxasoog li nga xamante ni setul ak seetlu euh, bëgg naa woon gën a yaatal lool waaye xam naa ni euh, waxtu bi xaw naa kii euh, xanaa ku fi amoon benn question booy laaj rek pare nan pour kii man maa ngi tudd Ibrahima jóg nekk service d'hygiène bu luga yore lépp loo xamante ni mi ngi jëm ci waxtaan ak askan bi ci mbirum set ak sellal jërëjëf barakaatu ñu nuyu mbokk yi fi dajee yëpp di leen ziyaare euh, daanaka di sëñ Fall waxoon doyoon na ñi jiitu woon it li waxoon doy na euh, waaye xanaa euh, kàddu yi sant rek lay doon di leen sant yéen ñi nga xam ne jóge ngeen Tuubaa muy gan gan yu tedd yi jóge Tuubaa ñëw euh, bàyyi seen yitte yëpp ngir euh, teewe jataay bi nga xam ne dañoo bëgg euh, ñiy war ñiy war a ñëw ca Tuubaa ñu xam nañ fay ñëwee ña ña leen di taxawoo xam nañ leen di taxawoo te loolu Euh, màggal ni nit ñi toll nit ku ne ci nekk bari na koo xam ne du miin dëkk ba bari na euh, bu fa miinee euh, nosul teg ko ci yoon woo xam ne kenn ku ne coono coono ba nga waroon a daj bu loolu amutoon dana wàññiku doon di sax màggal moom coono yi xëy na kii na moom ndax lu baax moom moo yomb faaw mu ami coono waaye nag euh, coono yi wàññiku ku nekk ñu teg la ci yoon woo xam ne euh, jafe-jafe yi nga daan am dana wàññiku loolu euh, ndimbal la ndimbal la ci ñi ñi ñi màggal si waaye ndimbal la ci ña fa dëkk kon loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax di leen sant ci Euh, euh, déplacé bi ngeen déplacé ñëw euh, ngir loolu ngir liggéey bu am solo boobu nga xam ne ñi ci taxawe ñëpp lañ maanaam ñi ko féetewoo ñëpp lañ ci wut ndax liggéey la bu mënta ñàkk boo xam ne maanaam faw dana am ñu koy taxawe ñu koy taxawee te ànd ceeg yéene ñoom ñoom ñi nga xam ne euh, ñuy taxaw jumaa ja ñëpp di ay boroomi xam-xam euh, boole ceeg ànd ak yéene yéene ju kawe ak pasir euh, buñ ñëwee leeral muqaddimatul xidma bi nag fii te jiite ko euh, leeral leen ni war a taxawee loolu dana leen dimbale ba ba ndax euh, euh, maanaam pasteef ak xam xam xam xam buñ àndee rek lépp yéwén kon ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di leen sant ci taxawaay bi di leen yóbbante ay siyaare sëñ Afe di leen yóbbante siyaare ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko gannaaw loolu ñu ngi leen di seereel euh, waa dëkk bi ñii ñu fi nekkal muy euh, mbokki taalibe yi ak euh, jullit ñi fi nekk ak ñëpp ñu ci nekk dëkk la boo xam ne daanaka doo xàmmee tarixa loolu yàlla def na ko fi ndax ay mbokki neen lañ Euh, waaye euh, ñu ñu ñu euh, bëgg lu baax lañ ñu ngi leen koy seeral di leen seerale ñi nga xam ne ñu fi teewal maire bi ñu ngi leen di yóbbante sant ca maire ministre maire Moustapha Diop suñu rakk sëñ sëñ sëñ sëñ xaadim mu ngi leen di yóbbante sëñ ma dikkee taxawaay bi muy bi mu taxaw ci bis bi te yàgg koo taxawee ci yu mel nii euh, mook Ahmadou Mbéri Sylla mi nga xam ne moom barab bi moo fi nekk mooy kilifa gi euh, di taxaw taxawaay yu mel nii nga xam ne foo fu ñu ko soxlaa ci lu mel noonu rek noppi na moom euh, maanaam ñu ngi leen di seeral tax seen taxawaay di di santit eh, eh, seri service yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi eh, te sëriñ bi tuddoo leen léegi muy police ak sappoor ak service seen Sénégal ay Croix-Rouge ak ñu mel noonu ñoo nga xam ne ñu ñëpp teew nañ fi ci ndigalul gouverneur kon ñoo ñëpp ñu ngi leen di sant di rafetlu seen taxawaay di ñaan euh, euh, liñ fi waxtaane euh, nit ñi dégg ko te jafe ko xam ne njariñ rek la di ñaan yàlla yóbbuñu ca màggal ga te la la la sëriñ bi bëggal doomu aadama yi ba woote ko muy jariñu fii fële yàlla nañ ko ci yàlla defal te ñu yàgg koo fekkee kon ñuy sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum sëriñ